tey seenu maire loolee munta nekk Mary Teuw Niane ne moom dafa bëgg ndar géej lool moo tax dafay dem ci li nga xam ne mooy élection yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu coalition yeewi askan wi boo mooy tuwulee nag ci tas tasar fa la jëma ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa Pastef Dakar ak Bounkiling ñoom nag daan nañuy suspendre seeni activité ci coalition yeewi askan wi yéen a gi ne nag la nga xam ne moo ko waral bokk ci piccog mbaaloo gi xëccoo gi xam ne moo am ci diggante Pastef ak taxawu Ndakaaru yéen a kaay na ay ambition personnelle moo xam ne mooy coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay gi di Libération nee na Pastef Dakar ñoom nag dañoo bëgg am ay candidat maanaam ci mairie yu Ndakaaru yëpp yéenekaay gi di Le Quotidien xëy di ko dëggal yéenekaay gi di Libération na ko may moo yëggale en tout cas Pastef Dakar ñoom daal ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëg ma danañu def nag seeni investir yéenekaay gi de La Tribune xëy dañu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi la nga xamante ni moo fay xëy daal neexul ndax ñi nga xam ne ñoo Pastef ñooñee nag dañoo budee budee nag waa PUR ñoom nag dañoo deltu ginnaaw bu baax a baax ci mbir mi yéene kaay gi ne na ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoo bëgg a njaay cekke nag bëgg a jël mairie yi nga xam ne waa taxawu Ndakaaru ñoo ko yoro yéene kaay gi ne na Pastef bu Ousmane Sonko nee nañu nag ñoo dal dañoo njort ne nag Pastef dañoo am candidat ci diwaanu Ndakaaru yéene kaay gi du source xëy dañu xibaar naan ñu du coalition Yewwi Askan Wi rek jamono ji fa ak pëccxoo ama ndax coalition Wallu Sénégal ñoom Abdoulaye Wade coalition boobu maanaam ci toj la jëm ñi nga xam ne ñooy waa PDS dañoo a ngar daajoo a ngar daajoo Touba a gars yi mënuñu leen see bàyyee moo tax nag Pape Diop bokk gis-gis ñoom nag jamono ji pare nañu ngir dem ñoom rek dina am benn réunion boo xam ne ñoom Pape Diop danañu ko organiser na ngir xalaat ci mbir mi yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na en tout cas li am ba des sala mooy élection locale yi ak coalition yi ni xam ne moom lañ ko gisee pëccëxoo na lool ndax coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu leen waxee na leen toj na pëccëxoo na ma bu mu leen bett yéen kaay gi la témoin nee na Aminata Mbengue Ndiaye double jeu lay def nag dem ànd benn bokk yaakaar waaye nag mbir mi daal na teg si yoon ba pare nag na nekk loo xam ne daal dafay boole yéen a kaay gi di l'info xëy di ñu xibaar naan ñu nag dam Mbengue Ndiaye ak waa parti socialiste ñoom nag ñoo ngi teg pression ki nga xam ne mooy Macky Sall yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy ci Cellou Dalein Diallo mi nga xamante ni maanaam dañu koo tere woon nag ngir nag mu génn réewum Guinée Conakry Alpha Condé moo ko ko tere woon ginnaaw coup d'état ba nag daan nañu koy bàyyi ginnaawam bandanga waaye nag première sortie da koo daal di jagleel ki nga xam ne mooy président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES moom Cellou Dalein Diallo président Mbagnick Diop ni ki démb ci àllarba ji ginnaaw digg bëccëg yi la ko daal di dalal nag escale boo xam ne def na ko fi ay heure yu bare bari war a dem nag ca diwaanu Bruxelles l'international libéral ñoo ko fa daal di ndax nag mooy vice président bi bii moo nekk téeméer ak juróom-ñaar fukkeelu juróomu congrès boo xam ne parti libéral belge ñoo koy def ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi nga xam a investissement Sénégal ca la bokk yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu tribunalum Ndakaaru ak li nga xam ne moo fa xew ni ki démb benn waaye la ñu fa doon atte kooke nag dañu koo jàppe woon lu jëm ci wàllum drogue waaye nag bi ñu koy atte nee na fekkuñu ci moom lenn nee na commissariat bu HLM 5 fekkuñu ci moom lenn waaye nag ñi nga xam na ñooy policiers yi bi ñu ko dugalee ci seen oto bi dem ba tolloog Masalikul Jinaan dañ na ko ee jox ñu trois cent mille waa nag nee na mu lànk ba tëdd wa te nee sax am na benn policier boo xam ne daf koo saaga yéen kaay gi di libération xëy ci lona Casamance nga xam ne lu toll ci benn milliard ak juróomi téeméeri junni ci ay millions yoo xam ne dañu ko faa la Lat Diop déposé na plainte yéen a kaay gi di 24 heures nee na Macky Sall jamono ji attaqué na li nga xam ne mooy mbalit mi ndax na cleaning day Macky Sall dafa bëgg ñu daal di koy commencé waat yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samba dikk na nag ci concurrence bi nga xam ne moo am diggante Wave ak Orange concurrence bi neex na lool ci askan wi ndax nag sénégalais yi bëggoon nañoo dee maanaam Orange moo leen doon rey ci tarif yoo ne yéeg na ba jégg dayo waaye gis nga bi wéef ñëwee wéef ak orange jamono ji concurrence bi askan wi da bëgguñu concurrence bi jeex ndax concurrence bi da leen a arrangé jamono ji good fine yéene kaay gi di estat xëy duñu xibaar naan ñu ligue des champions Juventus de Turin ni ki démb dafa confirmé ndax yàlla FC Barcelone ni ki démb ñoom daat na ñuy su dee nag Manchester United ñoom nag ni ki démb dañoo këpp yalwaanu Atlanta ndax nag Atlanta la def Manchester United